waa asalaamaaleykum mbokk internet yu Diégo parle Fouran nuyu naa leen ziar leen ah di wax ñi soog a bees seen nañu abonné ah activer cloche de notification bi te ngeen aimé vidéo yi ah te di ko partager te ngeen ñëw ci commentaire ah di wax seen xalaat ak seen gis-gis waa gars yi te day ñëw wax ah, ci Cher Ndour Cher Ndour nag jour la boo xamante ne mi ngi fubal ci club boobu di Benfica ah, ah ca fi nga xamante ne mooy Portugal actuellement nag petite catégorie yi foofu la nekk Cher Ndour nag. Euh, am na ñaari nationalité muy italien ak sénégalais ndaxte papaam sénégalais la euh, récemment rek papaam def na interview di alerte fédération sénégalaise de football pour ñu jéem a woo xale bi mu ñëw parce que gis nañ que ni booy bu am branché la peut-être que dinañ ci gën a ñëw yaatalaat ko ci mais tey jii ñu gën a intéressé ci moom mooy dañoo gis club yu bari actuellement ñu intéressé ci moom Cherno nag pour ñu nga xamul muy football ci Benfica ci petite catégorie yi déjà cette saison football na Youth League euh, maanaam Ligue des champions xale yi mooy le 19 ba nga xamante ne Benfica sax moom moo ko jël d'ailleurs moom moom moo ko jël euh, te Cherno Ndour dafa participer ci victoire boobu parce que dugal na ci final bi et puis dafa football 9 mars yi ci Ligue des champions xale yi daal di dugal li nga xamante ne mooy 3 bii euh, tey nag ñu gis que ne club boobu de FC Barcelone intéressé wu na ci Cherno Ndour di ko laaj. ngir bëgg koo recruter indi ko fi nga xamante ne mooy FC Barcelone parce que gis nañ booy bi talent bi nga xamante ne am na ko potentiel bi nga xamante ne am na ko parce que il est très prometteur parce que booy bi xale bu ndaw la 17 ans rek la am te milieu de terrain relayeur la di def un mètre quatre vingt dix gis nañ taille bi ma am gis nañ gabari bi gis nañ vision de jeu bi nga xamante ne am na ko loolu tax Barça intéressé wu ci moom kon kooku noonu du jour bu ndaw kon fi mu ne nii fédération bi ci des euh, ñu jéem a euh, def ay démarches woo ko parce que actuellement mi ngi football ci petite catégorie yu équipe nationale bu Italie kon papam def na alerte fédération bi pour ñu wax ak xale bi pour mu ñëw. waaw kon nag loolu dama yaakaar na du lu parce que booy bi am na potentiel kir football ci même sax bu football ci équipe A Sénégal ñu woo ko ci U23 yi wala espoir yi mooy loolu noonu quoi en tout cas dinañ gën a ñëw yaatal ci booy bi parce que fi mu ne nii euh, mooy lool mais dañuy gën a ñëw def ci vidéo gën ci def jàngat ci moom gars yi laa doon wax jaajëf